dans les travaux publics xam na ne Demba Diop daal ko yóbbul donc loolu moo tax ñu bëgg a Demba Diop travaux yi ñooñu commencé su dee fédération moo koy defal fédération bi ma bok su dee FIFA moo koy defal su dee nguur ko war a defal bëgg ko pour mën a jeexal jàpp mu am njëriñ pour effectivement la population. maa ngi leen di remercier sant yàlla bu baax di ñaan yàlla nag lii nii bu nekk bu nekk première manifestation mais dernière manifestation parce que ñaan naa yàlla la liste de la réunion am solution par rapport au problème. maa ngi leen di bon li waral tey site bi mooy que ni fii au niveau de Parcelles Assainies on a constaté que depuis 9 ans maanaam stade bi nga xam ne ñu ci liy fubalee boobu léegi stade bi dafa tëj te travaux yi wax dëgg yàlla dafa yàgg loolu moo tax nag ñu def sirine bi tey pour réclamer l'ouverture du stade dans les plus brefs délais waaw parce que nawetaan bi nga xam ne mooy maire parcelle tey ban maire parcelle bi te ban jàngat la ci def moom ci loolu waaw mais xam nga édifice bi maire parcelle yortu ko maire parcelle moo démarré woon travaux yi mais par la suite état jël donc travaux yi bu yéexee nekkul au niveau de la maire des parcelles mais c'est de la responsabilité de l' loolu moo tax ñu interpellé directement le ministre des sports à ce que mu def priorité stade municipal des Parcelles Assainies bi loolu moo waral jotaay ñu 1er juillet stade mën a fonctionnel ndax ñu mën a démarrer nos activités voilà. li toppatoo mais parcelle faale ñu leen parce que du ñu def dara li ma wax nag mooy lii nii mooy premier pas teg nañ ko ci njëkk ak teraanga ñëw wuy si leen ñu ñëw ñu waxee ko président ODCAV de Dakar ñëw teew fi ñu wax ko comme ñoom niñ ko waxee ñu nangul nañ leen ko mais li ñu bëgg mooy balaa nawetaan bi di pare nañ defar stade bi suñ defarul stade bi du ñu fubal moo dul am te dinañ def nawetaan moo dul am wasalaamaaleykum wa rahmatulah loolu laa mën pour wax. non loolu rafetlu nañ ko rafetlu nañ ko bu baax parce que loolu yàggoon nañ ko seet yàggoon nañ ko séntu parce que 2012 ba léegi ku jël stade tëj ko bu ñu jëlee stade bi tëj ko 2012 ba léegi loolu neexuñu dañ koy naxarlu mais bu ñu demee tey ba ñoom ñu ñëw fi kon ça veut dire que yëg nañ ñu ñun am nañ ñu ñu métti loolu rek moo nekkoon loolu moo taxoon ñu jóg ñoom konku ñoom yëg nañ ñu am nañ ñu ñu métti ñoom nañ ci taxaw nañ ci taxaw quoi balaa xam nga muy weesu quoi balaa leneen di jóg parce Sénégal moo demee noo xam ne tant que gars yi yënguwuñu rek tant que yëngutuwuñu rek non duñu duñu duñu duñu ñëw seen kaw te ñu loolu la ñuy bañ parce que parcelle ay nooba la fi dëkk quoi dépassé nañ niveau boobu parcelle ay nooba la fi dëkk état bi yëpp la ñuy duut baaraam à particulièrement Moussa Sy nga xam ne mooy maire parcelle Moussa mooy maire parcelle dëkk ci wetu stade bi moom dafa waroon a jël xar tànk tubayam dox ci dafa waroon xar tànku tubéyam dox ci zone parcelles yi li ñu bëgg te zone parcelles yi lenn rek lañ bëgg dañoo sonn ci jéggaanu esat di dem di fayal suñu doom yi paas di fayal supporters yi paas di sonn ci équipe yi mais loolu dañuy dépenser tout la ñuy dépenser tout te loolu dafa métti ci nawetaan kese te nawetaan xoolal waroon na dépasser loolu ñun waroon nañ dépasser niveau boobu ñu toog ba fii di soxla ay loolu laa amoon ci lu may wax wasalaam ñaxtu ko mooy que ne 2012 ba léegi stade bi ñu ngi mu mu jot vraiment ñu livré suñu stade ñu ngi sonn trop ñu ngi joué ay Guédiawaye ñu ngi joué ay Pikine ñu ngi joué foofu ay final ay match championnat yoo xamante ne bu jeexee da ngay ay xale yu am ay 10 ans 11 an di jógee ay Guédiawaye di ñëw du point de vue sécuritaire y problème donc xale yi c'est pas sûr ñuy jógee ay Guédiawaye di ñëw mais du point de vue financier aussi tamit problème donc loolu moo waraloon tey doxu ñaxtu bi ñuy wax ne tey jii vraiment ñun dañoo bëggoon vraiment stade ñu defar ko avant le premier juillet et là ñu ngi interpellé le président de la république le président Macky Sall pour mu ñëw jàppale ñu loolu bu weesoo loolu bu weesoo loolu bu weesoo nous allons passer à une vitesse supérieure fees del del del del Moussa Sy te te ay garawaay moitié tribune la fi defoon le président Macky Sall ñoo fi génnee un milliard cent ne Matar ba ñëw teg fi premier premières pierres ñu defar ko mu mel nii defar ko lépp normal mu téye stade bi tëj ko xañ zone parcelle ñuy dem ay géej waaye Alassane Djigo fu ne ñu fay dem balaa ngay ñëw fii deux heures du matin parents duñ tëdd duñ nelaw mu téye stade bëgg xaar kon ko ñu ngi dem 2022 élection bu ko inauguré ko 2022 pour defee ko campagne am loolu waa Parcelles duñ ko nangu gis ngeen stade bi nga lii c'est pas normal li dafa a pare parce que mënoo téye Alassane Djigo def nañ ko ñaari yoon si kaw Parcelles bu géej waaye def ko ñaari si kaw Parcelles tey jii bu bëggoon stade pare na mais celui qui la tëj fii stade bi bàyyi ko def fi ñaari ouvrier ba mu xamee ni def sitting la commencé ñii commencé liggéey depuis quand kenn gisu benn ouvrier buy liggéey bañ commencé ba ñu yëgee ne sitting bi dañ koy def rek ouvrier yi commencé ñëw fii di tappale boo defoon naa bu ñu demee ñu arrêté affaire bi le premier juillet nag lañ leen may maire bi te sax day dégager moom mandaam jeex na depuis 2019 mandaam na lu ko fi dese mooy ay mutage yu ñu ko may te incha allahu rabi si kattanu yàlla 2022 élection moo ko fi bàyyi Macky Sall ñu ngi koy lancé benn message parcelle bëggatuñu Moussa Sy mu ngi def fu nekk naa mooy candidat candidat bëggatuñ Moussa Sy na dem yoonam def na fi 15 ans deful dara parcelle 15 ans 15 ans yoo xamante ne parcelle amul eh, pavage zéro côté miir bi rek la pavage dañoo sonn si moom wasalaam.